أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala tollu ba tey ci suratul maida tey ci kàttanu yàlla ñuy jël ñetti aaya aaya 94 95 96 ñetti aay yi nekk sunu kanam sunu boroom subhaanahu wa taala mi ngi ñu ciy jàngal juróomi mbir juróomi mbir yooyu bi ci njëkk mooy ibtilaau llah taala li ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil xudaybiya bi kasrati saydi bayna aydihim wa harrama alayhim sayduhu famtasalu amra allahi taala wa lam yasiidu fa kaanu xayran min bani israil wa afdala minhum ala ahdi nabiyihim anbiyaihim tomb bu njëkk bi nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ci aay yi nekk sunu kanam mooy ngëneel bi yàlla def ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu gën ko banu israil lu waral loolu mooy sunu borom tabaraka wa taala dafa nattu sahaaba yi ci benn xare bu tudd xudaybiya ñu nga xiif soxla lu ñu lekk yàlla tere leen rëbb bi leen yàlla tere rëbb dafa mel ne sunu borom jalla jalaaluhu saa yu tere ay jaam dara loolu mu leen tere day yomb ci ñoom banu Israil yàlla da leen tere woon nappi samedi bi leen yàlla tere napp samedi jën yi dañuy bañ a ñëw jour yëpp ba mu des samedi jën yi dañuy ñëw ba ci tefes gi am na ci yenn saa yi sax jën yi danañ déborder tefes gi daal di génn ci biti ndax natt bu leen yàlla natt saxaaba yi yàlla tabaraka wa taala tere leen ca waxtu woowu ca Hudaybiya yàlla tere leen rëbb mu araamal ko ci ñoom ndeysaan daanaka rabu àll yi dañoo gedd àll ba ñëw ba jege leen moo xam njanaaw yi la moo xam yi nekk ci àll bi la yi dox rab yi waaye ndeysaan ñoom ñu wuuteeg waa banu Israil ñu ngoy ci santaane yàlla tabaraka wa taala kenn ci ñoom rëbbul ñu fi yomboon na ci ñoom trop nga xam ne ku yóotu woon ci loxoom sax dana mën a jël dara ku sànni woon fettam day jam du sooy boo yóotoo sa loxo léegi nga jël ay nen wala nga jël ay cuuj boo sànnee sa fet léegi nga jam kéwél wala nga jam njombar wala lu mel noonu mbir yi daanaka jege leen trop ak coono gi ñu sonn waaye ñu yëg ne ñoom yàlla da leen a tere lii ndeysaan foofu la ñu gënee waa banu Israël banu Israël ba leen yàlla tere samedi dañoo tëral seeni pexe daane nañ dem vendredi mbaal koj jën yi comme jën yi samedi la ñuy ñëw nañu bàyyi ba jën yi ñëw ñu dem koj leen samedi bi jàpp leen su ko defee duñ leen yóbbu dañ leen di bàyyi noonu ci géej gi ba dimanche ñu dem jëli leen bu yàlla laajee bu yàlla waxee ñu ne ko gis nga bul ñu indil benn problème ñun nappiwuñu samedi dimanche lañu yóbbu jën yi sunu kër waaye xam nga pexe doomu aadama du sotti ci kanamu borom bi tabaraka wa taala innahum yakiiduna kaydan wa akiidu kayda ñi ngay pexe seeni pexe man yàlla la ma war a def sottil naa ko bu yàgg yàlla bàyyi leen bañ dem di jëli jën ya bisu dimanche yàlla def leen ñoom ñëpp ay mbaam xuux góor ak jigéen moo tax dafa bokk ci ngëneel gi saxaaba yi gën banu israil mooy yàlla nattu na leen tere leen nappi tere leen rëbbi ñu bañ a rëbbi ñu daal di jàpp ci santaane yàlla kenn ci ñoom napput ma dafa kaanu xayran min bani israil ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñoo gën banu israil ca seeni jamono yonent ñaareel bi ñu war a jàng ci sunu aaya yi nekk sunu kanam tey mooy tahrim tahrimu sayd ala al muhrim illa saydul bahri fa innahu mubaahun lahu tey danañ jàng ci képp kuy aj soo xasee armal mooy simmiiku sa col ba làmbaayu sa armal bi ci kaw ak bi ci suuf taraxlaayu yow rëbb araam na ci yow waaye napp dagan na ci yow yàlla dafa araamal ci jaamu yàlla bi ñuy tuddee ujaaj ku dem aji boo xasee armal yàlla araamal na ci yow nga rëbb waaye daganal na ci yow napp loolu baax na dagan na ñetteel bayaanu jazaau man saada wa huwa muhrim danañ jàng tey lan mooy àtte lan mooy fay képp koo xam ne da nga armal ba pare daa di def nag li yàlla tere woon mooy nga dem rëbb li àtteem rek fa innahu jazaau mislu ma qatala min an naim sa fay li tegu ci sa kaw mooy la nga rey lu mel ne moom rek ngay fay waaw la nga rey dañuy xool kii aji woon xasa armal yàlla tere woon ko rëbb mu dem rey lu mel ne mbaam àll lu muy fay mbaam sëf bu reyee nag na ko àll lu muy fay nag boo reyee looy fay mu ngoog boo reyee njamala nga fay gëléem soo reyee dara rek lu mel ne la nga rey loolu la la lislaam di wax nga fay ko ba mu des pitax pitax yi ci biir xurum bi ku leen rey gàtt ngay rey ngay fay ñeenteel mooy wujubu at tahkim fi man saada fi ma saada fi ma saadahu lmuhrim wala yasixu an yukaffira saaid bi nafsihi mooy islaam sharia dafa waral suñ ne wujub rek mooy dafa war at tahkim mooy atte fi ma saadahul muhrim ci li nga xam ne ki armaloon rëbb na ko ba rey ko lan mooy ñan nañ koy attee lan mooy atte waa jooju mu ne wala yasixu du mën a wér mukk an yukaffira saidu bi nafsihi ki nga xam ne moom moo rey moo naan ah man de nangam laa rey lii laay def déedéet déedéet déedéet dañuy xool ñi mu àndaloon ñu ci gën a maandu ñu ne xool leen waa ji li mu rey après mu fay doo àtte sa bopp kon loolu tamit danañ ko jàng tey waaye danañ jàng juróomeel mooy saydul muhrim xaraam alal xaraami min annaas wal xalaal mbokk yi képp koo xam ne danga armal islaam araamal na ci yow nga rëbb moo xam luy naaw la moo xam lu am ñeenti tànk nekk ci àll bi dootoo rëbb amma mbirum géej lépp lu ci génn dagan na ci yow loolu mbokk jullit yi buñ ko tënkee muy juróomi tomb moom lañu war a jële tey ci sunu ñetti aaya yi nga xam ne moom moo nekk ci sunu kanam noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis ci aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين طعام مساكين أو عدل أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق ليذوق وبال أمره عفى الله أما سلف ومن آد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أهل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحصرون سنبرم جل جلاله dellu siwaat na tey di woo way gëm yàlla yi ci baat bim leen tàmmee woowee mu ne yunaadi rabb tabaraka wa taala ibaadahu lmuminin yàlla woowaat na jaamam yi way gëm yàlla yi ci baat bi mu leen di woowee bis bu nekk mooy ci baatu ngëm li yuallimahum muakkidan xabara yàlla woo leen pour xamal leen pour jàngal leen pour leeralal leen waaye feddali loolu ci xabaar bu mu leen war a xabaar information bu mu leen war a jox tey ñoom jaam ñi bi annahu yabluhum ixtibaaran lahum yàlla xamal leen tey ne dinaa leen nattu dinaa leen nattu nattu boo xam ne test lay doon ndeke borom bi suñu borom léeg-léeg ci jàngale yi muy jàngale mu digle dara fekk dara taxul mu digle ko lu dul dafay xool ñan ñoo koy def waaye léeg-léeg mu tere mbir dara taxul mu tere ko lu dul day xool ñan ñooy bàyyi mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm la yabluwannakumullahu yàlla de dafa jëm ci nattu leen li yaxtabirannakum yàllaa ngi jëm ci teste leen ci nattu leen natt boo xam ne du lenn lu dul bi shay'in min as-saydi lenn la rek ci napp ci rëbb waaw da ngeen a jóg di jaamu ji yàlla di aji wala ngeen di umra ji jëm ca kaaba ga ca néegu yàlla ba gàddaale seeni ngànnaay seeni xeej ak seeni fet ak seeni jaasi yàlla xam na ne am na ci yéen ñoo xam ne bëgg nañu rëbbuwaale yàlla nag léegi nee na tere naa leen ko ixtibaaran lahum ngir nattu leen li yuzhira al muti min al aasi ngir mu feeñ ana ñan ñooy déggal yàlla waaye ana ñan nooy lànk ndeysaan xam ngeen ne Moussa Moussa ànd ak banu Israil yàlla tabaraka wa taala wax leen def leen lii ñu lànk dugg leen ci dëkk bi ngeen sujjóot bañ duggee lu ñu wax bal sax ba ñuy dugg danoon raam di darngu baat yañ leen waxoon ne mooy wax leen sippiku bàkkaar ñuy darngu naan xabatum fi saar ndax ñoom rek la déedéet lu bari ci ay xeet léeg-léeg seen yonent ànd ak ñoom yàlla yabal leen ne leen def leen nangam ñu daal di weddi la yonent ba waxoon daal di def leneen la nga xam ne ñoom mooy seen coobare waaye yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla musal na ko ci loolu sahaaba yi yàlla musal na leen sahaaba yaa ngi nii war a jaamu ji yàlla aji yor seeni ngànnaay bëgg rëbbaale ndax kat rëbb yomb na ndax lépp a ngi ni seen kanam waaye kat yàlla tere leen ko ngir mu xam ana ñan ñooy déggal yàlla ana ñan ñooy weddi yàlla moo tax mu ne leen yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm ana ngeen waay la yabluwannakumullahu yàlla day mu ngi jëm ci nattu leen bi shay'in ci dara min as-saydi ci rëbb loo xam ne tanaaluhu aydikum wa rimaahukum loo xam ne dana ko jot seeni loxo su ngeen ni yootoo rek jàpp même bu ngeen fa fekkul picc ma di ngeen mën a jël nen ya wala ngeen jël ay doomam wala sax mën ngeen ko faa fekk ngeen boole ñaar yëpp jël ki doon bóof ak lam doon bóof nen yàlla wala doom yàlla wala ndey ja wala sax ngeen fekk fa ñett yëpp bàyyi jeeg yaay jeeg doom ya wala nen ya te loolu nekkul sax lu ngeen di fett wala lu ngeen di jami jaasi wala lu ngeen di jami xeej da ngeen koy yóotu rek daal di koy jot moo tax yàlla ne tanaaluhu aydikum seen loxo day yóotu rek jot li ngeen bëgg a jàpp kon jege na la bi mu teg ne wa rimaahukum nag boobu mooy fett yeeg fles yeeg xeej yi boobu da ngeen di sànni doog a jam tanaaluhu aydikum boobu loxo kese la coono amu ci amma wa rimaahukum boobu nag jumtukaay lañ koy defee jumtukaay il faut mu am aala aalatu sayd benn jumtukaay fett la wala xeej la wala jumtukaayu rëbb yi la bu doon tey ñu ne pistolet wala yu demee noonu kon ñaar la loo xam ne tanaaluhu dina ko jot ay diikum seeni loxo wa rimaahukum ak seeni xeej pourtant da ngeen dégg xerek ñu yàlla tabaraka wa taala xeej bi li mu jam wala fett bi li mu jam wala jaasi ji liñ ko dóor wala jumtukaay bi ñuy rëbbe lan moo ko jëfandikoo déedéet lan lan lañ ko jëfandikoo lan ci cëri doomu aadama yi moo jëfandikoo loolu loxo waaw lu tax kon léegi yàlla mu ne tanaaluhu aydikum ba pare mu ne encore wa rimaahukum mooy bi mu ne aydikum loxo bi kese la amul jumtukaay dafa yóotu rek jël bi mu ne rimaahukum nag benn outil la ci outil yi ñuy rëbbe dafa jëfandikoo benn arme moo tax borom bi daal di utiliser ñaar yëpp mu ne lii nag yàlla subhanahu wa taala def na ko li yaalama allahu ngir yàlla xam man yaxaafuhu bil xayb ana ñan ñoo koy ragal ci kumpa am na ci doomu aadama yoo xam ne su mbol de taxawul am na ci nit ñoo xam ne bu alkaati taxawul rek du ñu normal ah am na ci doomu aadama yi noonu lañ mel foog yoon rek taxaw même sa kër sax am na ci ñoo xam ne boo leen di yar foog yar taxaw am na ñoo xam ne boo leen def leen maa ngi dem damaa bëgg ngeen defal ma dara soo ñëwee di nga gis ñëpp def ñu ne kii deful xam nga lu tax deful parce que nekkoo fi waaye boo fi nekkoon moom mooy pay day def ci jaami yàlla yi nit dafa am ñoo xam noonu lañ mel leen yàlla ne def leen duñ def am na ci ñoo xam ne bu yàlla ne def leen jeex na xaaratuñu kenn sahaaba yi nag sunu boroom subhanahu wa taala musal na leen ci loolu yàlla wax na ne li tax ma araamal ci yéen tey rëbb te rëbb bi ni mu yombee su ngeen fettee jam su ngeen sànnee xee jam bu ngeen yóotoog seen loxo jël li yaalam allahu ngir yàlla xam man yaxaafuhu bil xaybi ana kan mooy ragal yàlla ci kumpa gis nga ragal yàlla li muy neex neex neex neex neex mooy nga ragal yàlla ci kumpa waaw fu kenn nekkul yow kenn nga nekk kenn gisu la mu leer na ne fii am nga occasion pour am lu ne wala def lu ne waaye nga ragal yàlla nga bàyyi xel yàlla ne duma ko def c'est parce que lii yàlla daf ma ko tere wala nga bàyyi xel yàlla ne ni dinaa ko def parce que yàlla ma ko sant loolu mooy alxëybu mooy kumpa aka bëri ci alquran fu yàlla di wax jaam ji ci mbirum kumpa aka bëri même ci suratul baqara njëlbeenu aay saari bopp bi yàlla ñamuy tagg di wax ne ñoom gëm nañu lam leen njëkk a indil comme màndarga bu yone ne ñoom gëm nañ yàlla lan la yuminuuna bil xëyb allazina yuminuuna bil xëyb ñii dañoo gëm kumpa gisuñu yàlla gisuñu aljanna gisuñu safara gisuñu gisuñu waaye lépp gëm nañ ko kon yàlla bëgg na xam ana ñan ñoo ko ragal ci kumpa fa harrama alayhim yàlla araamal ci ñoom taala assayd te mooy rëbb kan wahum muhrim wahum xurum fekk ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ araamal ci ñoom lii fekk dañoo armal waaw te nag li ci doy waar mu ne summa ibtalaahum bi wujudihi loolu yàlla tere leen dafa leen ko tere ba pare dafa mel ne loolu dafa génn ci àll bi nag ñëw naan leen ñoo ngi nii de acca bismillah lu ngeen mën ci ñun def leen aywa ñoo ngi nii gis nga de natt yàlla yàlla bu araamalee ci yow dara rek loolu day yomb ci yow mu jege la lu tax mooy yàlla da lay natt xoolal yàlla bi mu araamalee njaaloo xoolal tey jigéen ñi waxuma la nga mais dañoo futteekoo futteeku futteeku futteeku ba pour nga mucc ci njaaloo sax léegi sa yaram day daw dégg nga te pour dafa aram mais xoolal jigéen ñi ni ñu oyofee ni ñu oyofee seen bopp yi ah daanaka ndeysaan am na ñoo xam ne ci mbedd yi rek la ñuy langar langar yi boo ñëwee ñu ne sama caam yi ñoo ma jëndal sandis sandis ñaata lay jar 500 700 kon moins de 1000 francs mën nga ci nekk jigéen léegi ah ay 300 ay cere ay fonde wala kii neen am na ñuy laaj fukki dërëm allahu akbar xoolal gis nga li mu yombee pourtant dafa araam moo tax mbir souvent ci jullit yi su leen ko yàlla teree rek ngay gis loolu daal di jege lu tax muy jege ba yomb noonu yàlla mooy testé mu xool ñan ñooy def ñan ñooy bàyyi allahu akbar ndeysaan am na jigéen ñoo xam ne sax waxuma la xam nga kii nee na am na ñoo xam ne fukki dërëm la ñuy laaj mais am na ñoo xam dañuy dawal seen oto ba dab la ne la yéegal dawal seen oto ba pare ne la yéegal kaa ma yóbbu la sama kër gàtte la voilà ñooñu ngay ànd ak ñoom ba pare ñoom ñoo lay fayaat waaw ba pare ne la kër gaa ngi nii saa yoo bëggee noppalu ñëwal xam nga sànq dañu ne woon yéeg góor ñee joxe ñii nag moom toll nañ foofu sax ne moom ñooy ñëw jox la allahu akbar gis nga léeg-léeg sunu borom noonu lay def su teree dara ba pare nag day sànn day natt doomu aadama yi ana ñan ñooy bàyyi ana ñan ñooy def mu ne lii yàlla def na ko ngir nattu leen mbir yi jege seen loxo lool nga xam ne suñu yootoo rek daa di jot suñu sànnee daa di jom bi kulli yusurin wa suhula ci bépp yombute mi ngi nii seen kanam allahu akbar comme ni mu araamale woon nappi ca banu israil après nag mu yombal jën ya bi su samedi su samedi bi jotee rek yàlla ne leen bu leen bu leen nappi samedi su samedi jotee rek jën yi daal di ñëw daal di fees géej gi te jën yi duñ dem ba ci digg ba de nekk fa déedéet dañuy ñëw ba tefes gi am na jën yoo xam ne sax dañuy déborder ñëw naan nii seen caaxo ñi ci naaj bi naan nii ndeysaan bu doon doomu aadama la ñu ne dañuy bronze wu xam nga loolu ñu tere la ko ba pare su samedi gi paasee jën yi dugaat ci géej gi dem seen yoon boo ñëwee dimanche doo gis dara nga ñëw lundi ñu ne kenn gëj nañ lekk jën samedi suba teel rek jën yi ñëw fees daal. banu Israël ñu ne xam ngeen lan la gis nga lii foog ñu jël ci pexe ñu ne nan ngeen def ñu xaaju ñetti xaaj ñenn ñi ñoom seen yoon nekk ci faalewuñu sax bi gaa yi wootee réunion ñun de ñoom dañu ne ñun demuñu suñu yoon nekku ci ñun fekkewuñ bokkuñ dem seen yoon ñeneen ñi moom dañoo ñëw toog deuxième groupe bi dégg ñeneen ñi naan xam nga nu ñuy def dañuy bàyyi ba samedi bu jën yi génnee ñu jël mbaal yi dox 20 mètres 50 mètres koj jën yi tàllal mbaal mi koj jën yi samp bant yu gudd nga xam ne jën yi du ñu mën a rëcc ba ñooñu waxee seen xalaat ba mu rafet deuxième groupe bi ne leen ah tee ngeen a bañ a dem yàlla dañu ko tere de bàyyi leen dëgër bopp ñu ne leen xoolal gis nga yéen bu ngeen demut ngeen jóg seen yoon nekku ci ñooñu daal di jóg dem seen yoon mu des troisième groupe bu dëgër bopp bi yàlla bàyyi leen bañ dem mbaali jën yi def loolu ñu wax seen xalaat yooyu ñibbi seeni kër bant ya nekk fa ak mbaal yi jën yi nekk fi jën yi mënuñoo dem ndax kar nañu jën yi ba dimanche matin nag ñu sol seeni gants ak seeni bot ak jël seeni gaal ne dañuy jëli jën yi ñoom ñu génnoon ñooñu groupe googu yëpp troisième ñoom ñëpp góor ñi yàlla def leen ay mbaam xuux jigéen ñi yàlla def leen ay golo kenn ci ñoom ñu bi suut ñëpp yàlla da leen a soppi wa qulna lahum kunu qiradatan xaashiin xoolal li doy waar mooy yàlla ba mu leen defee ay golo ak mbaam xuux ba pare def ne dama kaa def mbugal pour yéen ñiy ñëw ci ginnaaw ak yéen ñiy dégg histoire bi su ma teree da ngeen a war a bàyyi képp koo xam ne li may tere doo ko bàyyi nii ma def nii noonu laa lay def fa jaalnaaha nakaalan li ma bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawizatan lil muttaqin yéemu ma sax ci avertir leen yéen ñi koy dégg ak yéen ñi fekke ak yéen ñi ñëwagut waaye lii waar la pour képp ku ragal yàlla bu la yàlla tere nga bàyyi moo tax saxaaba yi comme alxuraan ci ñoom lay waaj ba ñu ànd ak yonent bi di dem yàlla ne leen araamal naa ci yéen rëbb bu kenn ci yéen rëbb moo tax mbir yi ñëw mais laaluñu ndax ñoom xam nañu lu leen ci fekk mu ne sunu borom subhanahu wa taala noonu la def ak banu israil waaye nii la def ak saxaaba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi ndax ñoom annal muslimina mooy sahaaba yi jullit ña istajaabu li rabbihim ñoom nangul nañ seen borom wuyu nañ ko wam tasalu amra jàpp nañ ci santaane yàlla li leen yàlla wax ne bu leen rëbb lem nañ seeni paakaak seeni jaaseeg bank seeni loxo amul kenn ci ñoom ku laal am picc wala ab rab mu ne nag foofu la ñu wuteeg banu israil ñoom fay nawum asaw ñoom dañoo mooy wasaadu ñu dem nappi fa masaxahum allahu xiraw xaasiin yàlla def leen ay golo yu torox allahu akbar mbokk yi sunu boroom jalla jalaaluhu ba mu waxee man yaxa man yaxaafuhu bil xayb lan la teg ci aaya bi li ci tegu mu ne faman ictada baada zalika fa lahu adabun alim képp ku jalgati képp ku jéggi dayo fa nga waroon a yem nga jalgati al i'tada mooy jalgati mooy fi nga waroon yem danga kaa romb bu doon benn waaye def laa pes nga war a fayu wala nga fayu benn dangaa def ñett dangaa fayu ñetti yoon yàlla ne leen fa man i'tada képp ku jalgati mooy lii ma wax mu xëtt ko bañ koo def def lu ko neex mooy jël fettam wala tàllal ay loxoom ci rab yi daal di leen di laal baada zalika ginnaaw lii ba ngeen déggee information bi ma leen jox falahu ñeel na ko azabun mbugal alimun bu métti waaw loolu rek mooy waxi borom bi yépp koo xam ne ab jullit nga yàlla bu la teree da ngaa war a bàyyi bu la santee da ngaa war a def fekkee ne li ngay wax ci yow dëgg la gëm nga yàlla yàlla bu la teree da ngaa war a taxaw bu la santee da nga war a def waaye boo reppee ba yàlla tere la nga xam ne yàlla tere na nga jalgati yàlla nee na dinaa la mbugal mbugal mu metti kenn du mën a tere ma mu mbugal la borom bi woote waawaat na leen ci baatu ngëm mu ne leen yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm diñ doon jàngal da doon wax yaa ayyuha alladina amanu boo gis ñooñu seen borom taxe nañ mu ne yaa ayyuha alladina kafaru boo gis ñooñu seen borom alku nañ yaa ayyuha alladina amanu mu ne ruwiya anna abal yusr amri ibnu malik al ansari qatala himar wahshi wa huwa muhrim bi umra amul hudaybiya fa nazalat hadhihi al aya nee na aaya bi di deuxième aaya bi di yaa ayuha allazina amanu bi la taqtulu sayda wa antum xurum e yéen ñi gëm yàlla ngalawaayi bu leen rayati am rëbb fekk yéen yéen a ngi armal nee na li wàcc na ci ku ñuy wax abal yusr mu ngi tuddoon amr ibnu malik al ansari nee na dafa rayoon mbaam mbaam àll ah lan mooy différence mbaam àll ak mbaam sëf ximaar waxshi ximaar waxshi mooy ban mbaam mooy mbaam bu weex boobu am rëdd yu ñuul yi te mu rafet lool semaine ba la laa doon waxtaan ak ay xale ci mbaam mbaam ma ne nit ñi dañoo def yëfu dof mbaam yooyu kay ñoo gën a rafet suñu mbaam yi ñoom kay dëgg-dëgg mbaam yooyu lañu waroon jël def ko def ko mbaamu kër wala wala gaay mbaam yooyu ak sunu mbaam yi bu gën a rafet bële moo gën a rafet te moo ëpp doole ah wala moo tax nit ñi bàyyi mbaam yooyu ci àll bi daal di jël mbaam yu ñaaw yi ah loolu war nañ ko laaj suñu bopp de mbaam yooyu sax wax dëgg yàlla nit ñi dañ leen waroon jël boog di leen dawal ndax dañoo rafet trop boo leen gisee bañ groupe ak seen rëdd yi nga xam ne kon rek loolu rek bokk na ci màndarga nga xam ne li la yàlla wax aljanna neex na am na ay xeetu rab ay xeetu picc yoo xam ne ñi ngi ci àll bi boo leen gisee ñu nekk ci garab yi ah wala léeg-léeg nga gis kër buur yi am na ñoo xam ne am nañu alal dugal fa yenn picc yi oh te xoolal loolu yàlla di wane loolu nii ci àdduna rab yi ngeen di gis yàlla da leen a wàcc jëlee leen aljanna wàcce leen ci suuf si comme ni mu wàccee aadama loolu ab ay alxuraan la bal sax rab yi ñoo fi jiitu aadama ndax yàlla defar na suuf taaral ko ba mu rafet daa di fi wàcce ñaata rab qisasul ambiya samaniya azwaaj juróom ñett xeetu rabu àll yàlla wàcce leen fi ci kaw suuf si ba ñu jur ba suuf si fees dal suuf si dafa weexoon tàll ba bu ci jant bi tàppee day mel ne or buy melax lépp vert rab yi nekk fi picc yi lépp di naaw allahu akbar doomu aadama yàlla doog koo indi ci kaw suuf kon mooy mbindeef mi mujjee ñëw ci kaw suuf moom doomu aadama terewul yàlla ne ko inni jaa'ilun fil ard xalifa mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala mu ne leen yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm ngalawaay laa taqtulu bu leen rey assayda am rëbb wa antum yéen xurum fekk yéen a ngi armal simmeeku ngeen seeni yére yéen a ngi fas yéene da ngeen di aj wala da ngeen di umra armal ngeen ba pare làmbaayu ngeen seen sër bu ngeen war a woddoo teraxlaayu ngeen ah teg ngeen beneen yére bi ba génne seen benn mbagg fas yéene jaamu yàlla moo xam génne ngeen ko wala génnewu leen ko ngalawaay bu leen reyati am rëbb moo xam luy naaw la wala luy dox ak ay tànkam wala muy raam lenn kenn ci yéen bu mu ko defati ñaari baat ñaari wootee ngoog woote gu njëkk gi yàlla woo julli ni di leen jox information ne leen nangam dinaa ko def loolu li moo ci taxawaay ñaareel bi mooy woote la woote bu mujj bi lan la yàlla di def day tere lan lay tere julli di lu mu leen di wax mooy bu ngeen armalatee amu leen droit rey am rëbb mu ngoog fa akkada lahum yàlla dëgëral loolu lan la dëgëral tahrimi sayd mooy araamal gi mu araamal am rëbb wa bayyana lahum maa yatarattabu ala dalika min jaza waaye yemul rek ci araamal ko waaye yàlla wax na leen ne la cay tegu ci koo xam ne dem nga ba jalgati atte yàlla ba nga yóotu sa loxo jàpp am rëbb walla nga daal di jël sa jumtukaayu ngànnaay ba nga yoroon nga daal di ci laal am rëbb yàlla subhanahu wa taala lan la wax mu ne wa man qatalahu képp ku ko ci rey minkum ci yéen mutaammidan te moo ko tey fa jazaa'u fa jazaa'um fayam mooy mislu ma qatala comme la mu rey minan naami ci minan naami ci jur la nga rey moo xam fas la wala mbaam la wala am jamala la wala am am lépp loo rey rek lu mel noonu ci jur yi moom ngay fay min an naami al ibil wal baqara wal ganam moo xam gëléem la wala nag la wala béy la wala xar la la nga rey dañuy xool ñaar ñu maandu ci mbooloo ma nga nekk ñu daal di xool li nga rey nu mu toll ñu daal lay poñe nga fay lu toll noonu fekkee yaa ko tey fekkee teyoo ko nag luy saate mooy amoo bakkaar doo fay dara ndax ci islaam ku juum moom amul bakkaar rabbana la tuaxisna in in nasina aw axtaana inna allaha la yujaawis an ummati alxata wa nisyan wa mastukrihu anhum kon atte baa ngi noonu mooy képp koo xam ne ci yéen li yàlla araamal mooy bu leen rey am rëbb mu ngoog alqatlu lugatan ifatatu ruux wa huwa anwaa mu ne rey mooy lan mooy taqale ruu ak yaram lépp képp koo xam ne da nga fekk luy dund nga fexe ba dindi ruuga ci yaram ba yow rey nga loolu moo tax mu ne ay xeet la ay xeet rey ay xeet la bokk na ci annax mooy loolu ñu naan loj ki loj lan la ñuy loj buñ koy rey ah gëléem danañ ko loj ak lan nag dañ koy loj xar dañ koy loj dañ koy loj wala dañ koy rendi loj ci la bokk ñaareel bi mooy azab mooy rendi ku ko ku loj da ngaa rey ku rendi da ngaa rey wal xan xoj bu mu sedd guy rey nga la ak lan wa dar mooy ku jël dara assommé ni ku rëll mu faatu rey nga kon rey ay façon la ku ci def yooyu rek rey nga loolu nag la yàlla tere ku ko def ab rab boo armalee moo xam li nga ko defee sa loxo kese la moo xam li nga ko defee ab jumtukaay la nga ko defee su boobaa yow atte bi day dal sa kaw su fekkente ne la nga rey yow mii yow yaa ko tey fal hukmul waajib ala man qatalahu jazaan mislu ma qatalahu min an naam képp koo xam ne rey nga dara ca ba nga armalee la islaam teg sa kaw sharia mooy lu mel ne la tolloog la nga rey loolu ngay joxe loolu ngay fay wa huya al ibil moo xam nag gëléem la wal baqara wala mu nekk nag wal xanam wala mu nekk am gàtt béy la wala xaar la su boobaa nan lañ koy àttee mu ne yaxkumu bihi dana ko atte zawa adlin minkum ñaar ñu maandu ci yéen saahiba adala min ahlil ilmi dañuy xool mbooloo ma nga xam ne moom nga nekkoon ñaari nit ñu fa gën a maandu ëpp fa xam-xam ñoom ñaar ñu ne ah waa ji de daa rey kéwél bam kéwél la rey nag kéwél lan la tollool ci juri kër yi ah béy wala xar mu daal di rey lool waa ji nagu àll la rey su boobaa ñu ne na rend nag waa ji jamala la rey ñu ne na jël gëléem daal di fay loolu nag ñen ñoo koy atte mooy ñaar ñi yàlla wax ne yaxkumu bihi zawa adli minkum ñaar ñu maandu ci yéen waaye nekk borom xam-xam su boobaa mbokk jullit yi loolu waa ji fay loolu waa ji génne nga xam ne atte nañ ko ci moom ba léegi nag moom war na def loolu mu ne fal adlaani yanzuraani ñaar ñooñu nga xam ne sariya moo leen tànn dañuy xool ila saydi ci waa ji la mu rëbb wa ma yusbihuhu min al naami lii mu rëbb lan la nuróol ci jur yi fa naama tusbihul jamal mu ne naama mooy lan bànjooli du naama mooy bànjooli ah xam nga bànjooli allahu akbar xam nga bànjooli yow ana arabisan yi xam nga bànjooli mooy lan ah yow tukulóor nga tukulóor nu muy tuddee bànjooli yow tukulóor nu muy tuddee bànjooli ci pël bànjooli mooy borom baat bu gudd bi te mu mën a daw autriche moom la tukulóor naan ndaw olof yi naan ko bànjooli arab yi naan ko naama tubaab yi naan autriche rab yi moo ci dàq daw ñu ne moom lan lay nuróol soo ko reyee looy fay gëléem gëléem ngay fay gis nga mu ngoom alhamdulillah mu ne wa baqara alwaxsh tusbihul baqar mu ne nag wa àll mu ngi nuroog nag wal gazal yusbihu tays boo reyee kéwél ngay fay béy wa hakaza noonu la saa yoo reyee loo xam ne yàlla daf la tere su boobaa luy sa at mooy loolu ñu waxoon sànq ñaar ñu maandu ñooñu nga xam ne ay borom xam-xam lañ ñoom ñooy ñëw xool li nga rey fa mu tëdd fa nga ko teg ah wala fañ ko fekk mu tëdd ñu daal lay atte atte bi nga xam ne moom la sharia tëral ci yow mu ngoog mu ne lii ñu àtte ci yow nag na nga yëg ne rab boo rey moroomam ngay fay mu ne ba mu des pitaxu yooyu nekk ci kaaba gi mu ne illa alxamaam fa fiihi shaat su fekkee pitax yooyu nga rey yooyu nekk ci kaaba gi noonu wala fële soo ci reyee soo reppee ba laal ci benn xar ngay rey gis nga daraje pitax yi am te soo demee dañoo fees del del del del del kaaba gi waaye dañoo fees del del Médine waaye Médine fi ñu gën a fees mooy baqiya fi ñu suul saxaaba yi ak waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg nga dugg ci armée li nga gis leen dañuy dañoo sëgg ci suuf si ba doo leen xàmmee ndax ni ñu ñuule ba ni ñu bare kenn du lal foofu kenn du leen laal yàlla da ko araamal képp koo xam ne def nga loolu fekk yaa ngi ara yaa ngi armal nga rey lenn te yaa ko tey sa atte mooy nga fay comme la nga rey ñaar ñu maandu te am xam-xam ñoo lay atte la nga fay nag léegi nuñ koy def hadiyam baaligal kaaba day nekk benn adiya hadiyu boo xam ne fu ñu ko jëmee mooy ca kaaba ga waaw dañ koy jiital yóbbu ko mag daal di koy rey daal di koy séddale way ñàkk ya wala su fekkee ne mënta nekk loolu nga joxe alal jala muy jar mu ngoog ñu daal di koy saraxe su fekkee loolu mënta nekk waa ji la mu rey xam nañ li mu war a fay par exemple béy la wala nag la moo ngi nii dañ koy jiital ba kaaba ga rey ko gisuñu lenn loo xamante ne moom lañ mën a jënde la mu rey dañuy jël ci moom lu tolloog loolu mu waroon jënde nag bi daal di koy sarax miskin yi su fekkee waa ji daa rey ba pare nag waxuma ne dara waaye gisuñu lu ñu war a jënde pour fay wala gis nañ loolu sa waaye amul njëg gum ko jënde am na beneen aata buy dal ci kawam de lan la saam day woor waaw su fekkee mënta woor nag am na leneen beneen atta buy dal ci kawam mooy lan ah beneen atta day dal ci kawam atta boobu lan la nisfu soo lay joxe ah miskin yi la leen di jox loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne lii hadiyam baaligal kaaba benn hadiya la boo xam ne hadiyu la boo xam ne dafay joti kaaba ga aw kafaaratun wala mu def kafaara kafaara gi lan la taamu masakin mu jox ay miskin ñu lekk mu lexal leen mooy loolu ñu waxoon sànq saa boobu muy joxe moo tax lépp rek sunu borom subhanahu wa taala leeral lan lu nu war a def ndeysaan lépp amu ci alxuraan loolu sunu borom leeral lan lan lan lan war a jàpp lan lan war a bàyyi lan lan war a def lu ñu war a lekk lu ñu war a naan lu ñu war a sol lu ñu war a lu ñu war a lépp amul lu yàlla bàyyi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu taamu masakin waaw aw adlu zalika siyaaman wala lu tolloog loolu ci koor waaw lii nag yàlla def na ko lu tax li yazuuq ngir ngeen mos li yazuuqa ngir waa ji ñam coono métit yàlla santaane ñu def wala yàlla tere ñu war a bàyyi ah siqlu jazaahu diisaay bii yàlla teg sa kaw loi bi yàlla teg sa kaw jazaau zambi lan la sa fayu bàkkaar bi nga def xay su saada ndax yàlla dalaa tere nga dem rëbb wa saydu xaraamun rëbb ci ku armal dafa araam léegi nag comme yow da nga dëgër bopp te yaa ko tey moo tax yàlla mu ne li yazuqa wabaala amrihi na nga ñam méttitu mooy santaane yàlla bi nga def ngoog allahu akbar moo tax yàlla su teree bàyyi rek su diglee sant su diglee jëfe léeg-léeg nga dégg ci ndakaaru ci Sénégal ñu wax ndigal jëfe rek wala loolu ngeen koy dégg ndigal jëfe rek waaw waaw ñun kay buñ jotee ndigal rek jëfe dëgg la de waaye ndigal bi gën a rëy yaakaar naa ne bàyyeekoo koowul ci doomu aadama waaye fan la bàyyeekoo ci yàlla ndigal yépp bi ci gën a rëy mooy bi bàyyeekoo ci yàlla balaa nga naan bu doomu aadama jëfe kay nangam rek di rey sa bopp wallahi bi yàlla santaane moo ci gën a yay sunu borom subhanahu wa taala nee na afallahu yàlla jéggal na leen ndeysaan amma salafa la ngeen passé woon dem sunu borom moo baax wallaay du topp doomu aadama afallaahu yàlla jéggal na leen amma salafa la ngeen passé woon la ngeen bàyyi woon yàlla du leen ko jàppe woon alaama mada ca la wéy waaye nag li nekk ci kanam tey jii bi aaya bi wàccee yàlla araamal ku rëbb waaw jeex na ku ko defati rek yàlla nee na ma dal sa kaw amma la passé nag ci ay jamono ngeen doon armal di rëbb di def lu leen neex di rey lu leen romb ngeen rey loolu moom yàlla dootu leen ko jàppe même gis nga naan sàngara yàlla wax na ci aaya yi paase jéggal naa leen la ngeen paase woon ca la ngeen naan bakkaar moom yàlla dina la ko baal su jiitoo bi yàlla araamagul li nga def su yàlla araamalee nag nga tey def ko loi bi day dal sa kaw waaye soo tarxiisee soo juumee yooyu yëpp yàlla mën na la kaa jéggal parce que da ngaa juum waaye boo ko tee yat bi day dal sa kaw moo tax sànq dégg ngeen yàlla mu ne wa man qatalahu minkum mutaammidan képp koo xam ne yaa ko rey te yaa ko tey yàlla nee na mbir mi dafay dal ci sa kaw afallaahu yàlla baal na leen amma salafa la passé waaye wa man aada képp ku tourné waat nag fekk li yàlla tere nga nit waa duut sa baaraam wala nga jël sa arme def ci te yaa ko tey xamoon nga ne yàlla tere na ko fa yantaqimu llahu minhu yàlla dina fayu ci sa kaw baat boobu di fa yantaqimu llahu minhu yàlla dina fayu ci moom wa maanaahu annahu yuaqab yuaqibuhu ala maasiyati yàlla dina ko mbugal ci bàkkaar boobu mu moy borom xam-xam yi wax nañ ne al jumhur anna man saada wa dafa al jaza waa ji moom dafa armal ba pare daal di rëbb te moo ko tey yow ne ko yow yàlla terewul woon lii mu ne ah kay xam naa ko kay ñu ne ko kon yaa ko tey mu ne waaw ñu ne ko léegi da ngay fay nagu àll nga rey da ngay fay nag mu ne waaw daal di génn alalam ñu jënd nag jubbu kaaba ga wala amuñu nag ñu jël njëgu nag bi saraxe wala mu def la mu def léegi def na kafaara doxuñu 20 mètres waa ji daal defaat loolu borom xam-xam yi nee nañ dañ koy forcé waat mu fay wala dañ koy bàyyee noonu kenn du ko wax dara yenn borom xam-xam yi ne dañuy ñëw ba ci moom ne ko yow daal di koy wax aaya bi yàlla wax fa yantaqimu llahu minhu yàlla dina fayu ci yow loolu mooy atte loolu la jumhur wax ci waa ji wa baadu ahlil ilmi yara annahu la la yuhkamu alayhi shay wa yutraku dañ koy bàyyi lillahi ak yàlla taala bu kawe bi wa yuqaalu lahu yantaqimu llahu minka yal na la yal na yàlla fayu sa kaw nee na ñëpp dañ koy ñaan yàlla ne ko yal na yàlla fayu sa kaw mu nga kon ndigal yàlla su yàlla teree dañoo war a bàyyi wa man aada képp ku tourné waat képp ku dellu dégg li yàlla tere mu daal di koy def fa yantaqimu llahu minhu yàlla dana fayu ci kawam wallahu yàlla azizun ku xerañ la moo not ci nguuram zunti koom borom fayu la ëllëg yowmal qiyaam képp koo xam ne da ngaa dëgër bopp ba yàlla lim lay tere nga lànk bañ koo bàyyi yëgal ne borom bi tabaraka wa taala nee na ëllëg dinaa fayu ci sa kaw sikk nekk nga dund wala nga dee mbugalum yàlla daanug yàlla tabaraka wa taala mi ngi ñëw ci sa kaw waaw mu ngoog moo tax ñu war a ragal yàlla ñu war a moytandiku moo tax mu ne ala fattaqullaha ragal leen yàlla waxzaru ngeen moytu as sayd rëbb wa antum xurum fekk yéen yéen a ngi armal mu ne hada ma dallat alayhi al aya asaniyatu amma salis bu fekkee ñetteel aaya bi yàlla nee na uxilla lakum daganal naa ci yéen waaye léeg-léeg ñu wax buñ jàngee aaya yi ba mu jeex mbokk jullit yi wala ñuy romb romb yu gaaw rek nañuy bàyyi xel aaya yi fu ñuy jeexee sànq aaya bi jàng première aaya bi yàlla lan la wax falahu azabun alim fa man itada bada dalik falahu azabun alim képp ku jalgati yàlla neen dinaa la mbugal mbugal mu metti kon ku doon jalgati boo déggee li loo war a def bàyyi fii yàlla mu ne képp ku def dinaa fayu sa kaw wallahu yàlla azizun zuntiqaam yàlla nee na ku maa not ci sama nguur waaye damay fayu waaw kon ku dégg lii lan moo la war yàlla ne damay fayu de te saa yoo déggee fayu rek kañuy fayu deful lu jaadu ndax ku def lu baax kenn du fayu ci sa kaw saa yoo déggee fayu rek mooy lu ñaaw la waaw daf maa saaga ma fayu daf maa dóor ma fayu daf maa jam ma fayu mosoo gis mukk daf maa jox alal ma fayu ah daf maa labal lu baax ma fayu déedéet loolu doo ko dégg waaw borom bi nee na uhilla lakum daganal nañ ci yéen saydul bahri napp baatu sayd chaque jour dañuy wax ne la la ca tegu moo koy firi suñ ne asayad fekk waxuñu la nekk ca kanamu baat ba bul gaaw ndax bu dee géej asayaad la ñuy wax bu dee jéeri asayaad la ñuy wax waaye lan moo la wan ne waa ji nappkat la kii rëbbkat la lan mooy différence bi la mu yore ku dem géej est-ce que dañ naan rëbbkat la gis naa rëbbkat bi mu yor mbaal jëm géej ak gaal ki ngay waxal lu mu lay wax déedéet waaye gis naa rëbbkat bi mu jël fetal jëm géej ki ngay waxal lan la lay wax jën kay xanaa kenn du ko rëbbik fetal kon nappkat ak rëbbkat ci aj ku armal lan la la yàlla tere rëbb amma géej dagan na ma da mu ne uxilla lakum daganal nañ ci yéen saydul bahri mooy napp wa taamuhu ak ñamam lekkam lépp lu nekk ci géej ku armal mën na koo lekk géej moom loolu mooy mbiram laaj nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadis baa ngi ca buluugul maraam mooy premier hadis ci buluugul maraam mooy hadisu abdullahi almadlaji mooy waa ji ne woon yonent ñun dañuy dem géej dañuy yóbbaale tuuti ndox suñ ko naanee duñu am luñ jàppee dañuy mar léegi lan mooy atte ci ndox moomu nuy yóbbaale ndox moomu ndoxum géej lan mooy atteem yonent bi ne ko maa ul bahri tahuur waaye alxillu maytatu nappum géej dagan na ndoxum géej laab na waaye lépp lu génn ci géej dagan naa lekk géej lépp lu ci génn dagan naa lekk géej lépp lu ci nekk dagan naa lekk bal sax dañoo araamaloon ci ñun médd ak deret waaye xadis boobu moo ñu wax ne médd dagan naa lekk jën dafa médd wala médd ndax jën buñ ko génnee jigéen dañ koy rey dagan naa lekk géej nag moo mel noonu lépp lu ci génn dagan naa lekk ab jullit dagan na mu lekk lu dul leen saa yi boroom xam-xam yi di indi ay wuute yu ndaw di wax su fekkee dafa am lu génn ci géej mu nuroog loo xam ne ci àll bi la nekk te dafa araam loolu lu ci islaam wax ñenn ñu ne ah maadaama misaal mbaam xuux su benn rab bu génnee ci géej gi nuroog mbaam xuux textas amul amul melokaan amul lu leen wuute ñu ne ah kii de moom daa araama lekk de daga naa lekk de ndax yonent bi deful istisna dafa ne maa ul bahri tahuur waaye mu ne alxill maytat médd dagan naa lekk ci géej mu ngoog loolu la boroom xam-xam yenn yi tontu am na ci rab yi tamit yoo xam ne ñaari façon lañ dañuy dund waaw dañuy dund ci ndox mi géej ak jéeri dañuy dund ci dex dund jéeri wala ñu dund géej dund jéeri rab yi am na ci ñoo am na ci yoo xam ne ci suuf si kese lañ mën a dund am na ci yoo xam ne ci ndox mi kese lañ mën a dund gis nga kon ñetti façon la boo xam ne ndox mi kese la mën ak boo xam ne jéeri ji kese la mën ak boo xam ne ñaar yépp la boole fii ak fee la mën lépp suñu borom subhanahu wa taala nee na dagal nal naa ci yéen napp ak la fa nekk la ñuy lekk wa taamuhu ak ñamam mu ne mataan lakum mu nekk yóbbal pour yéen waaw da ngeen di tukki romb ngeen géej gi ah jën yi teer tefes lekk leen ba suuf jël leen ngeen def seeni saak wékku su ngeen demee ba xiif ci yoon bi ngeen lekk jël leen lenn li ngeen lakk def ko géej keccax wala lenn li ngeen def ko géej gi yóbbaale ñett yépp dagan jën buñ ko lekkee mu tooy dagan na buñ ko weeree mu wow lakk ñu ko dagan na suñ ko lakkee ba mu wow ñu weer ko dagan na ah mooy keccax ak géej ak jën luy différence bi jeex na mu ngoog mu ne mataan la ko mu nekk yóbbal pour yéen leen ci nekk ngeen def wali sayaara ak bu ngeen di tukki ah waaw yóbbaale leen ko almusaafiruun yatazawaduuna bihi ñii tukki dañoo war dañoo nekk ci ay oto dañoo nekk ci ay gëléem dañoo dañoo dañoo nañu tibb def seeni saak acca yóbbaale fii safarihim ci seen tukki mu ngoog kon gis nga yàlla tere na leen bële waaye dagal na ci ñoom bii ba jox leen ci sax yóbbal mu ne wa xurima araamal araamal nañ aleykum ci yéen saydul barri mooy rëbb saydul bahri mooy napp saydul barr mooy mooy rëbb maa dumtum xuruma feek yéen a ngi armal yéen a ngi làmboo seen mbalaan yu weex yooyu simmeekoo guleen rëbb araam na ci yéen waaw loolu nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndeysaan moo tax léeg-léeg ngay saan nga nekk ci kaaba gi nga gis kuy tawaaf pittax daal di ñëw rek teg ci kawam ndeysaan maa ngi fàttaliku benn jigéen ndeysaan dafa ne ci kaaba gi di tawaaf benn pitax ñëw tag ci bopp bi ñëpp di ko xool muy tawaafandoog ak pitax bi waaw di wër pi tax bi teg ci bopp bi dee la nga gis koo xam ne socantal wala dara ci rab yi mooy ñëw rek ne tegg ci kawam doo ko ñeme laal de boo koy rey rek di am problème mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala nee na fekk yéen a ngi armal rëbb ci yéen araam na maa dumtum xuruma fekk yéen a ngi armal wattaqullaha moytu leen yàlla wattaqullaha ragal leen yàlla allazi yàlla mi nga xam ne ilayhi ci moom tuxsaruuna ci moom lan leen leen di dajale gis nga aaya bi ñëwati na moo tax sëriñ bi nee na bu ngeen jàngee alquran ba aaya yi di jeex na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee borom bi tabaraka wa taala mbokk yi tey def ñoo soññ ci aaya bi fu muy jeexee ñun ñëpp nanu ànd déglu yàlla mu ne na ngeen ma moytu man mi nga xam ne ci man ngeen di daje ëllëg waaw wattaqullaha alladi ragal leen yàlla mi nga xam ne ilayhi ci moom tuxsaruuna lañ leen di dajale ëllëg yowmal xiyaam kenn du rëcc góor ak jigéen mag ak ndaw ku xam ak ku xamul ku am ak ku ñàpp ku ñàkk ñëpp borom bi tabaraka wa taala nee na ci man lan la leen di dajale amul benn jafe-jafe waaw waaw képp ku féttéerlu nag wa amarahum bi taqwaahu yàlla digal na leen nañ ko ragal bil xawfi ci ñu tiit min iqaabatihi ci mbugalam fal yalzimu taata nañu topp nañu sax ci topp ko bi fi'li ma aw jaba ci jëf ay santaaneem wa tarki ma xarrama ci bàyyi la mu araamal moom yàlla wa zakarahum yàlla digal na leen nee na leen bi xasrihim dinaa leen dajale jamian yéen ñëpp ilayhi ci man kañ yawma alqiyamati lil xisaabi wal jaza danaa leen dajale ci sama wet ñaari mbir mooy tax ma dajale leen mooy pour atte leen pour fay leen mbokki jullit yi lii mooy sunu darsu tey noo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.